ca njël man ma xëy man di muñ bagaalug ndigal ñaw ma war romb leen ñu far mujj may dox di santoo kadab te kenn séenatul laf ci man waaru leen ku daa santu aw nit di waaxoo kadaw ñu far mujj koy santu ndax yéemu leen sëriñ bii du maasum ña teew ak ñëwey ñi teew ak ñëwey ñépp semmal na leen ku koy wékk mbir am ñu lay wékk mbir du leb loo ko mos a xam murit sant leen du wax jenn waayam muñal jëm ëllëg da koy dal di jox dik ko ëllëg yeneen dañuy ñee ko kam tey bu ëllëg ñawee ñu far gën ko faañee murit seere leen te ñam wu ñuy togg woo xam ni day xaloo yéemu buy bax xesaw dégg leen li nuy am ci kër gi la nuy am ca kër galee koy xaloo gën murit waaxu leen ku jóg soobu am ngër te sëf ndox mu doy aku ñam layam jeenakat lagg leen ku xam ngir xamub dëkk yor yóbbalam na daw nag ba jot ay kemam jiitu leen